C'est illégal. Je m'engage à wax wax. téléspectateur Leral TV ami internet leral point net jërë ngeen jëf amati nañ mbégte bu baax di leen dalal ci suñu émission politique bii di Jokko comme ni ngeen ko xamee saa su ne ñuy waxtaane lépp lu jëm ci doxalinu biir réew mi rawatina ci wàllu politique tey suñu émission ñuy dalal monsieur Aliou Ndao Fall nekk. ambassadeur itinérant au cabinet du président de la république bokk itam ci secrétariat exécutif national bu APR yi yor fa lépp lu yor jëm si wàllu diaspora bi monsieur Aliou Ndao Fall ñu ngi lay nuyu. Euh, ngi leen di di leen sant di nuyu leeral waa leeral yëpp di nuyu particulièrement Dame parce que Dame Dame bien xam naa ko depuis euh, ci moom la xamee leeral sax donc di leen nuyu yéen yéen équipe bi fi nekk di leen di leen remercier quoi. alors comme ni ma ko waxee léegi rek ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm si actualité rawatina wàllu politique li xew euh, ñu koy wax fa yii yëpp ngeen gis ko mooy remaniement ministériel bi euh, d' abord seetlu nañ remaniement ministériel boo xam ne président def na ko dootuñ peut-être wax si si si si si nombre bi ak xëy na ni mu ko defee waaye euh, ñu gis remaniement gisuñu kenn koo xam ne si diaspora bi la jógee ak ki président doole ji ma amoon si diaspora bi ba ñuy wax sax la la diaspora mooy cinquième région du Sénégal est-ce que jàpp nga ne loolu tey lu jaadu la. Hmm, merci euh, lu jàddu la parce que euh, diaspora bi bon justement sax ça me permettra que ma wax ci parce que diaspora bi yaakaar naa ne président Macky Sall li mu defal diaspora amul benn président bu ko mës a def muy lan euh, keroog dañ doon ñëngoon réunion sax ma naan man dama dama lima lima lim ba mënatuma lim ñi mu nommé chargé mission ba ministère chargé de mission nag ba ministre lii jógee ci diaspora li nga xam ne président Macky Sall woo na leen ñëw mu nommé leen dama lim ba mënatuma compter rek c'est pour dire que bari na bari na ñoo xam ni effectivement ñu mu jëlee ci diaspora kii euh, euh, euh, placé leen fii mais gouvernement bi ñun déjà am nañ parce que su fekkee ne ku jógee diaspora ngay wax xanaa peut-être ministère des Sénégalais l'extérieur sax à la limite mais sinon soo sur le peut-être gën a wàll gouvernement bi yëpp ci diaspora bi la ñu jógee dama lay waxal ñëpp bi président Macky Sall jëlee pouvoir bi ñu ci bëri moom booleen leen indi euh, ku mel ni Modou Tall l' éducation ku mel ni am kii euh, Amadou Roth euh, comment on appelle ça encore Doudouka ñoom Massour ñoom Apix comment ça s'appelle encore là Moutaga Moutaga Sy et d'autres et d'autres su ma limee bon dina am ñu fa te mais déjà ñooñu ni sans compter moise mi nga xam ne effectivement c'est de la diaspora ak les directeurs euh, des des Sénégalais de aussi ñoo ñëpp sont de la diaspora non jaspora bi franchement ci gouvernement Macky Sall je dirais que dans tout l'exécutif dans toute l'administration macha allah tabarkalla ñaam fa sans compter ñun déjà au cabinet ñun ñi nekk cabinet on est plus de cinq ou six ñoo xam ne ni y a trois ambassadeurs y plus de quatre ou cinq conseillers yoo xam ne ñu nga fa donc au cabinet rek ñi nga xam ne directement diaspora la ñu jógee ñëw comme man comme ñii toog sama sama sama camarade collègue yi à l'ambassadeur Allemagne Bokum le coordinateur Ahmed Sarr le coordinateur de France il est vrai que moom du fii la nekk mais il est à du Sénégal euh, à Paris. mais en fait ñi nga may tuddal nii ñëpp xëy na bi ñuy ànd président c'était avant 2012 mais tey nekkatuñ au niveau de la diaspora di militer peut-être ñun on s'attendait tey koo xam ne peut-être pourquoi pas ku mel ne yow ñi nga xam ne da ngeen di nekk ci diaspora bi tey ngeen représenter la peut-être la diaspora sénégalaise au niveau de l'APR ñooñu lañ doon xaar xëy na ku mel ne ñoom dugg ci gouvernement bi. mais le secrétaire d'État <coughs> muy ça euh, ça fait même pas ci comment on appelle ça président nommé donc euh, il représente toute la diaspora moom moo topp la diaspora bi le directeur euh, général du Sénégal l'extérieur la même chose bi ñu nommé après moom la ñu ko nommé Amadou Amadou François Gaye des États-Unis bon il y Tamsir Faye. Euh, l'ANPEJ, non hein? L'ANPEJ, Tamsir Faye, qui vient de la diaspora. Et d'autres, et na amna xam ne dama la euh, dama dama dama bañ ñu naan faté na ma kiw mo mais bari nañ vraiment. Alors euh, bu ñu xoolee tam au niveau de l'APR les ministres chargés de Sénégal de l'extérieur ministre des affaires étrangères jëlee nañ ko koo xam ne si APR la bokk donte xëy na du APR de am Amadou Ba mais fa la bokk ñu jëlee ko fa teg fi koo xam ne bokkul APR Euh, allié la muy Aïssata Tall Sall euh, est-ce que loolu yéen diaspora bi approuvé ngeen lu mel noonu. ah oui xam nga loolu aussi il faut ngeen def attention <clears throat> parce que wax nga ko léegi ñun c'est bien avant 2012 du ñu ànd ak président Macky Sall waaw euh, nit ki nag su fekkee ne choisir nga ko tànn nga ko comme sa leader je pense que su jëlee décision même su fekkee ni neexu la wala am na na koy revendiquer je pense que du ci espace yu mel nii. am nañu ay espace yoo xam ne foofu la ñu dayee waxtaan peut-être comme naqari laa wax peut-être foofu mën nga koo wax mais en tout cas ñun de la diaspora euh, choix président mosuñu ko remettre en cause pour la simple et bonne raison que ni xam nañ ko bu baax xam nañ ne choix yi mu def c'est dans l'intérêt du Sénégal wax la sax dans notre intérêt ou son intérêt mais c'est d'abord dans l'intérêt du Sénégal te ñun Sénégal moo ñu yëkkati bi ñu ànd ak moom Sénégal moo tax ñu ànd ak moom amoon nañ yaakaar. temps boobu ne Sénégal bi dina ko defar te yaakaar boobu finalement confirmé ni ko mu gën ñu encouragé ba tax na lépp lu mu jël muy loo xam ne ci Sénégal la ko jëmale ñun ci diaspora bi en tout cas ñun on mais d' mais mais en fait ñu d' accord na sur le plan politique euh, arrangé wul waa APR parce que le ministre des affaires des affaires étrangères bu Sénégal bu bokkee si parti politique ni mu mën a jàppalee xëy na ñu bokk APR nekk si diaspora bi Aïssata Tall Sall xëy na xamante wu leen ak moom noonu bu dee jàppale ay militants la ëpp lu muy jàppale que yéen aussi. waaw non foofu moo fa je pense que yaa ngi wax waxi politique ñun jàppale APR jàppale militants yi c'est pas ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse Sénégal yow mii su président Macky Sall seete xam na ni yow mi am na loo mën a apporter Sénégal soo ñëwee ñun ñooy militant APR yi ñëpp yow la ñuy jàppaleel du question yow loo ñuy jàppaleel non l'essentiel que ñun ñoo la war a jàppale acceptation ñun ñoo ko war a jàppale parce que président fi mu ko teg surtout ñun waa diaspora c'est un poste sensible la diplomatie sénégalaise référence la man j'ai la chance d'être ambassadeur deux ans au Cameroun xam naa ni ñu respecté Sénégal xam naa diplomatie Sénégal ni ñu ko nawee Aïssata Aïssata Tall Sall c'est seen personnalité boo xam ne bi je pense que indépendant indépendamment de son poste là sax international xam nañ ko Sénégal waxi bi te euh, président su ko fa tegee rek xam na ni kii fi mu ko teg war na ko mën a doxal mission bi mu soxla. pour yàgg nañ dégg waa diaspora bi aussi di ne dëgg yàlla ñoom ils sont ils sont laissés en rade depuis bi président Macky Sall fal faluwaatee parce que seetlu nañ sax bi muy faluwaat électorat bi fa amoon dafa effrité wu je pense il est passé de cinquante six pour cent à cinquante et un pour cent est ce que itam xëy na ñàkk jàppale yooyu ministères yi di jàppale euh, seen militants yi du mooy indi lu woon lu mel noonu. non non man man gisuma ko noonu euh, xam euh, conquête du pouvoir ak gestion du pouvoir c'est différent il est il est il est connu hein, que euh, pouvoir bi amul amul ñuy génn non ñu lay jàppale rek y a l'espoir y a l'engouement y a l'envie soo gagné ba pare nag ba toog gestion du pouvoir bi c'est là où ça pose problème muy lan comme ni nga doon wax léegi ambition yaa ngi ci am na ñoo xam ne nii li lañ ci dugaloon mooy su Macky Sall amee dina ma sedd dina ma lii dina ma laa y a tout ça su ko defee ñi nga xam ne ñi amuñu conviction euh, boo xam ne affirmé ñu ci gën a bëri soo moytu rek danañ danañu dañ comment loolu politique aussi nañ nangu ne moo ànd booy ànd ak nit di wut dara da ngay jàpp ne bu amee dina la jox opportunité nga liggéeyal seen réew oui mais jox ça dire quoi jox la poste comme poste politique waaw mais poste poste jox militant yi poste mu a nekk loolu tax ma ne la loolu APR dund na ko comme PDS dund na ko PS dund na ko parti su fekkee ne jël nga pouvoir ba toog gestion du pouvoir laa budd loolu mënut a ñàkk y aura toujours effectivement de frustrés soi-disant parce que comme ni ko waxee gisuma ci nommé wu ñu ma ñii ma xaalis yóbbu ma màkk dugg fi mais loolu c'est c'est c'est naturel mënu mënuñ ko mënuñ ko bàyyi par contre par contre ce que je ne suis pas d'accord mooy que effectivement la euh, euh, que ne opposition bi yaa ko wax Sonko euh, mu ngi ñu jëlal ay nit mun ngi ñu jël ay militants non Sonko jëlul ñu ay militants. au niveau de la diaspora seetlu nañ. au niveau de la diaspora seetlu nañ aussi bëri na fu mu leen gagné tam. waaw dëgg dëgg la ma expliqué xam nga jël nit ki mooy lan ma ñëw convaincre la mais ñii comme li ma la wax léegi dafa am ñoo xam ne dañoo mer frustré waaw man comme euh, xuma nii la mel nangam nangam la ma ko jàppale kii wu ma faale mu man damay dem ci bokkum kooku duñ ko convaincre duñ ko te ñooñu comme li nga wax il fi juste que ñun ñu gëstuwaat leen waxtaan ak ñoom comme il le faut mais bañu ñu Macky Sall bañu ñu mais mais aussi bu bul jël li Sonko am lépp au niveau de la diaspora bu ko tënk si waa affaire yu frustré ñoo dem jàppale Sonko Sonko nañ nangu ne dafa indi benn programme boo xam ne diaspora bi dañ ci gis seen bopp d'accord est-ce que diaspora bu est que programme boobu lii président Macky def est-ce que programme boobu ëpp na lii président Macky Sall defal déjà lii moom dañ cee teg suñu bët diaspora teg nañ ci bëtam c'est du concret est-ce que loolu moo ëpp lii président Macky Sall defal diaspora bi je ne le crois pas donc waxumu ne diaspora bi yëpp effectivement ñi mu gagné foofu loolu la sont des frustrés non mais je veux dire encore en tout cas ñun en ce qui concerne ñun notre électorat nos militants ku ci dem pratiquement loolu moo la yóbbu ku ci Sonko récupéré loolu moo la yóbbu mais du Sonko moo ko convaincre non loolu amul. d' accord alors un autre fait marquant si gouvernement bu bees bi euh, mooy ñi nga xam ne ñoo génn des Tanor Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba Matar Cissé Mimi Mimi Touré sax moom nekkul ci gouvernement bi dinañ ñëw si kaam euh, ñu xool APR président Macky Sall ñi ko gënoon a jege gën a sonn si moom. ces militants de première heure Mbaye Ndiaye Mor Ngom Moustapha Cissé Lo Moustapha Diakhaté ñëpp di dem est-ce que jàpp ngeen ne nii muy continuer nii bu fekkee noonu la bëgg a continuer ba 2022 APR du tas benn yoon moom dong presque mu des fa ak ñi nga xam ne xëy na ñàkk dañoo ñàkk pexe. APR kan moo dem kenn demul ñu ngi fi wax ñu demuñu de. mais après ku ñu génne après da ngay nekk mer ngeen moi ah, ak ni mu leen di génne nii. Thierno Alassane Thierno Alassane Sall mën nañ ko si lim. Abdoul Mbaye daanaka bokkoon na seen parti dem na. non génn na. defal ndànk defal euh, ndànk Abdoul Mbaye xam nga li ko génnee Thierno Alassane Sall xam nga ko génnee kooku je je je discuter sax dama ci wax par contre ñi nga wax en dernièrement ci remaniement bi mais da dama bëgg aussi euh, nit ñi xam lenn mais ñooñu bi ñu ñëw dafa ñu fi nekkoon ñu génne leen ñu ñëw ñu dugal leen mais c'est comme ça c'est naturellement comme ça bu ñu gis ne sanction la bu ñu gis ne euh, non en tout cas man de man laa wax. ni ma ko gisee man maa ngi nii tey président Macky Sall mën na fi jëlee indi la fi ginnaaw ëllëg mu jële la fi indi keneen mais c' est naturel l' ordre normal des choses léegi nag nit ñi ñooy wax seen i wax te nee nañ euh, président la république moom mooy nommé euh, comment on appelle ça emploi civil et militaire oui oui su fekkee ne moom moo composé gouvernement moom moo am droit. na son collaborateur yow féetal ma fii yow féetal ma fii yow féetal ma fi nga nekk moom deux trois ans mu dindi la indi keneen wala nga nekk moom huit ans sax mu indi keneen mais parce que quand même dañu waxante dëgg xëy na yow moom li mu li mu doon comment on appelle ça euh, li mission bi mu la bi mu la bi mu yeggale nga ko dox nga ko kontaan. d'accord mais mais mais mais en fait mais en fait ñi ñu doon ñi ñu doon tudd ñëpp euh, ah, via la presse di wax ne dañu am des ambitions présidentielles Amadou Ba tudd nañ ko tuddaat ko Matar Cissé noonu Aly Ngouille Ndiaye est-ce que da ngeen jàpp ne hasard la rek mu jël ñooñu ñëpp du même coup génn leen si la attelage gouvernemental aussi loolu xam nga bu ñu ko bëgg wax Sénégal itam mënuñu ko mënuñu ko dégg. Euh, xam nga kan moo amul ambition. ambition présidentielle la ñu wax. ambition présidentielle kan ñun ñi fi ne kan mu bëggul nekk président jour. parce que mën ko président yàlla moo koy def kooku ça n'a rien gis nga en tout cas man de franchement man je ne vois comme ça ñi mu génne ñi ko noonu ñi mu ñi mu ñi mu génne ñi en toute sincérité même su fekkee ne nit ñu koy wax président Macky Sall moom moo xam lii tax mu génne leen lii tax mu indi ñeneen moom dong moo xam moom mooy composé gouvernement li muy gis li muy dégg li mu bëgg man xamu ko yow xamuloo ko. donc cër boobu ni ko ko may ngir yàlla bon maintenant nag comme maraîcher Sénégal moom moo mel noonu loo loolu daf ñu wax waaw yow mii tey su la dugaloon tey gouvernement man maa jëkk a wax dal sa kaw donc mais c'est pas ça ay liggéey ni ñu ko bàyyi cëram boobu ñun li ñu mooy lim ñu wax ne Sénégal mun ngi ko jëmale ko yoon teg ko dans les rampes comment on appelle ça de l'émergence ñun loolu la ñuy xaar si moom mu indi kii teg fi kii teg fi kii c'est pas notre problème te sénégal sénégalais aussi yaakaar naa loolu moo leen intéressé comme fa teg nañ ñu ànd ak yow jàppale la. un autre cas nag aussi très troublant moom mooy le cas de Mimi bi mu bi mu dàq indi le président Idrissa Seck si koo xam ne ñoom ñaar saa yu Idrissa Seck mosaan na attaqué président presque Mimi Touré moo doon nekk au front di ko défendre mais nga dàq ko indi ki nga xam ne daf la doon xas est-ce nag loolu wax dëgg yàlla de humiliation même Mimi bi muy def discours di di bàyyi. tuddul président tuddul Idrissa Seck moom ñëpp xam nañ ne presque moom moom moom président jubootuñ humiliation la ko ñu ñu ko ñu ñu ëpp si réew mi boo gisee. Euh, xam nga toujours euh, presse bi quelque part bokk na ci aussi quoi parce que dàq dafa ñaaw déjà wax na dàq na ko dafa ñaaw. ah noonu ko mën a tuddee. waaw non dafa nag non. génn génn na comme tout le monde comme ñëpp. mais c'est normal génn gouvernement wala génn dans kii benn institution mais du dàq. mais c'est normal indi woon nañ la nekk nga fi un certain temps encore une fois président Macky Sall moom mooy décider moo xam ne mu bëgg lu tax mu génnee ko lu tax mu indi woon ko lu tax lu tax lu tax loolu moom danga ma ko xam man mënu ma ci commentaire li ma la wax dama ne man président Macky Sall sama leader te bi mu bi ñu toogee depuis 2012 ba tey li mu def li ànd naa génne nañu bari. d'accord nga muy jël ñoo xam ne dañ ko xeexal jëlal leen fi indi ñoo xam ne dañ ko doon xeex remplace leen. mais moom moo xam moom moo xam quelles sont les raisons li tax mu indi kii génne kii on est en politique on est en politique ni waxte dëgg. remplacement bi wàllu politique la mais du intérêt Sénégal. non intérêt Sénégal loolu laa la bëgg waxal parce que politique bi pour lan la pour intérêt Sénégal su fekkee ne mu ngi composé mais intérêt Sénégal lay jiital du man lu ma neex wala lu neex. wala kii su kii de mu ngi da dafa ma doon xeexal démb kii dafa moo doon jàppale démb non c' est d' abord l' du Sénégal mën na dal ci man mën na dal ci keneen en tout cas man noonu laa ko gisee te noonu laa ko jàppee. alors le cas de Idrissa Seck sax laay des ba léegi si li mu wax situation bi fi mu toll la su le plan économie dañu war a jàppale réew mi mais li ñu seetlu mooy dañ koo jox poste PCA jox ko ñaari ministère loolu sedd sédd séddoo la un gâteau à partager la ko nit ñi mën a gisee ah. bu fekkee. façon façon bi ñu ko duggale si si si si si si si si pouvoir bi partage lay gën a nduur alors dama lay fàttali benn affaire président Macky Sall bi ñu ko élire février prise de prise de prise de prestation de serment foofu la woowee l' appel du dialogue appel dialogue bi du foofu la ko woowee appel dialogue boobu moom mu gagné à cinquante huit euh, cinquante six virgule huit pour cent il n' était pas obligé réew mi y' avait aucun problème moo opposition bi nañ kaay la ñu bokk liggéey malgré que man maa gagné mais Sénégal ñu ñoo ko bokk kaay la ñu bokk liggéey. bul fàtte ne opposition bi aussi nanguñu woon victoire bi contesté woon nañ ko i même Idrissa Seck si la bokkoon. Ah, demul fen fenn la demul amul fenn ko 58 pour cent gars yi est ce que dem nañ dem nañ cour kii cour constitution demuñu fen bon enfin loolu kii c' pour te dire tout simplement que ne le président Macky Sall il n' était pas obligé ñoom ñëpp nag ñi wax fii. Idrissa Seck ñeneen ak ñeneen le président il n'était pas obligé parce que moom il avait gagné cinquante six pour cent te ah, benn problème amul Sénégal coow amul mais ne leen kaay li ñu liggéey depuis boobu ci loolu ñu liggéey depuis boobu ba léegi ci dialogue boobu gis gis ngeen ko fii daje réunir nañ euh, Famara Ibrahima Sagna et d'autres et d'autres ba posé ko waaw su fekkee nag woote na temps boobu ouverture ba lii yëpp ñu teg ba yegg si fii processus bi mu seet xam na ne le président Idrissa Seck war na cee bokk mais lu tax du excellent situation économique bi Idrissa Seck wax du foofu la ñu toll tey Covid bi ñu bëgg a def comme comme benn gage d'explication Covid bi c'est presque Sénégal mën nañ presque jeex na fi est-ce que duñ nangu rek ne wàllu politique la le président ma Sall xëy na mooy préparer arrière ñu bari wax nañ ne Idrissa Seck la fi bëgg. Idrissa Seck la fi bëgg teg en 2024 moo tax xëy na muy def yi muy def yëpp. <laughs> yaa ngi lii li yaa joxoon man du ma euh, comment on appelle ça du ma gisaane 2024 yàlla moo xam luy am waaw c'est politique la mais man loolu moom bokkuma ci man je suis concret je parle de ce que je sais ce que je vis ce que je vois bokkul ak lii ma bëgg ëllëg loolu yàlla moo ko def euh, je ne peux pas président Macky Sall nekk fii di liggéey liggéey boo ñëpp pour ñu ñëw bokk liggéey ñu samp ci kenn. ñu ne daf ko bëgg def dauphin daf ko bëgg préparer daf ko bëgg mais ñi ci des nag. parce que parce que ki mu samp dafa waxoon ne lii mu ko jox mu ne amul njariñ moom bu toogoon daf koy dindi moo tax nit ñi gëm ne yëf yi yëf yi yaa ma neex affaire politique kese la moom moo ko waxoon kooku man xaw ma ko du man maa koy tontul loolu moom ngeen koy laaj moom mi waxoon loolu man li may wax mooy président Macky Sall li concerne président Macky Sall son équipe ñi muy bokk liggéey te ñooñu ñëpp man xam naa depuis parce que xam naa président Macky la bu baax a baax bien avant opposition te ñu ñi fi nekk ñëpp surtout waa France su fekkee ne gëmuñu koon woon amuñu ci moom yaakaar xam nañ ne kii fi mu jëm euh, Sénégal fi nga ko bëgg yóbbu fu baax la kon kenn ci ñun du ko def. d'accord président bi muy buut euh, réew mi bokkoon na si li mu doon wax wàllu démocratie gëmoon loon na nit ñi ne opposition bu dëgër dafa baax si réew ñu jox ko réew mi. bokk na si ay baat yu mu waxoon je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression tey nii muy tase coalition opposition yeeg di jël di leen yóbbu loolu sur le plan démocratie est-ce que aussi du un recul Sénégal soxlawuñ opposition wax dëgg yàlla bu am doole que moom muy aussi di jël opposants yi di indi si wetam nii rek. Euh, c'est votre point de vue c'est te li toujours da ngeen koy escamoté politique aussi. c'est comme la vie, ça évolue. En fonction des temps, en fonction des, des, des situations, en fonction aussi des, des perspectives. tey mbas mi gis nañ ñun ñëpp mbas mi ni vraiment ni mu ni mu ñu sonal ñëpp le bas peuple sonal nañ trop et on a besoin très rapidement que le Sénégal reprenne économiquement même. su fekkee au moins sant yàlla bu baax on a échappé quand même sax déggoo fenn salaire yi fayuñu ko dégguloo ko malgré que bi recette douanière rek ak yeneen ak yeneen amuñu ko mais quand même l'État a pu payer tout le monde de même les les les comment les les les entreprises privées État def na tout pour au mois que ñu continuer de vivre mais en ce moment. génne nañ ci gis nañ les les les pays les plus développés ñoom ci seen bopp ñu ngi def ay arrangement jéem a seet nag dañuy reprendre seen activité mais ñun aussi c' tout à fait normal bu leen ko bu leen ko xoolee politique tout simplement si le président appelle toutes ces bonnes volontés toutes ces tous ces responsables politiques sax si tu veux mais yaakaar nañ ne am nañ loo xam ne li ñun ñëpp suñ ko boolee de Sénégal dañ ko liggéey mu gaaw a kii. d' accord ñu génn ci d' accord alors mu foloo léegi ñu ngi si fukki weer juróom fukki weer ak juróom-benn demaguñ fi ñu toll nii jeunes yi commencé songaat géej gi di génn est ce que loolu du du du du ni déjà ni 2019 bi ñu ko fekk léegi politique am dafa échec aussi parce que jeunes yi bu ñu demee bay ñàkk yaakaar jëm diaspora bi nga xam ne ñu bëri dañuy wax dara desatu fa est ce que duñ nangu na tey li mu commencé dafa échec. Euh, jeunes yi est-ce que c'est la première fois ñu def ko. non waaw parce que booba président Macky Sall si la woon mais booba dafa dafa métti woon. ah bon kon ba léegi méttiwul. dafa échec moo tax xëy na mu métti. ah, ah président Ablaye Wade temps bi mu koy dafa dafay. dafa échec ñu wàcc ko. <laughs> waaw gis xam nga surtout côté boobu. je suis désolé d'en rire d'abord jaale euh, famille yi ñi nga xam ne ñi ñàkkale parce que xale yu bari gars yi nañ ci c'est vrai na lool trop trop métti na. man mii suis un produit de l'immigration ñun ñi fi nekk ñëpp xam nañ immigration na métti j'ai fait trente ans trente cinq ans xam naa ni métti mais dafa am loo xam ne aussi ci ñun la ñun je veux dire ñun euh, les parents ñun les grands frères ñun les cousins ñun les kii euh, Ablaye Wade mbas mi léegi loolu amoon na fi boy di dem ci àll bi di dee ba yàlla def bi président Macky Sall ñëwee ba depuis bi mu ñëwee seet leen bu baax léegi la affaire bi recommencé là la juste après mbas mi am na benn détail important bu ni bu bu xam naa ne ñu bëri xamuñu ko ci biir mbas mi Europe particulièrement Italie ils ont perdu delle ni ñu seen produit agricole seen i champs seen i culture seen yëpp ni sar yàqu ñu xool ñu ne immigré yi nekk foofu muy les immigrés africains ou de l'Europe de l'Est si on les régularise du ñu am ñoo xam ne ñi danañ mën a liggéey pour seen récupérer euh, seen euh, comment on appelle seen agriculture seen récolte ñu ñu ñu ñu ñu ñu mën ko def donc ils ont décidé xam nga de deux cent six cent mille régularisation li ma la wax le je te le de je te le dis en connaissance de cause te dinaa la jox ay ñu suñu responsable bu woo ma xam nga lan moo doon problème bi problème passeport mu ne ma Ndao Fall excellence ñun on a problème Italie ils ont décidé de régulariser un certain nombre ki kii alors que ñun suñu compatriotes ñi ngi fi ñu bëri nag amuñu passeport et c'est vrai que suñu amulee passeport duñ mën a prétende ci ci régularisation boobu soo leen ñu mënee dimbale indi fi yónni fi ay valise au moins parce que Milan rek doyul effectivement président Macky nangu loolu wax Ali Ngouille Ndiaye Ali yónnee ñaari valise Milan non euh, euh, Naples Naples ak Rome fekk bu Milan bi gars yi dafa 15 jours xaw ma xaw ma euh, un mois sax je crois dóor dóor dóor Guinée bii loolu amee nag mais xam nga xam nga ni ñu mel ñooñu ñëpp. woote fii ku mën a dugg si Italie soo duggee ñu régaler ku mën a dugg si soo soo duggee nga am i kayit muy un boo xam ne bi seetlu leen ku baax après pandémie bi. mais mais excellence li ngay wax nii. wax nii dafay mel ne da ngay bëgg a jël toor bi jox ko les sénégalais yi nga xam ne dañoo nekk à la diaspora. ñoom ñoo ñoo mais ci laa bokk mais mais mais mais mais. man ci laa bokk mais loolu lan mooy responsabilité aussi état da nga si bëgg a génne responsabilité état carrément. non non non non dëgg gu ma la yëgg gu ma ne la. dafa am benn détail bu important bu ñu fàtte moom laa doon wax boo xam ne bi yéeguñu xamuñu ko loolu bokk na ci beneen beneen beneen affaire bi l'état lan la mën a def l'état ne peut pas embaucher tout le monde l'état ne peut pas faire travailler le monde l'état met le cadre nécessaire et normal pour ku bëgg liggéey muy les nationaux muy les étrangers ku bëgg liggéey nga liggéey cadre boobu am na cadre bi am na il que nos jeunes da nga sànq sax ñoo ngi wax tey man suma ma jógoon tey bàyyi sama place bi ne maa ngi dellu sama dëkk pourtant j'ai de la terre au bord di fleuve ci ci dex gi de j'ai des terres j'ai l'eau su ma béyoon lii dellu na damay damay béy mais sama famille kii bi daal kii dafa dof mettre la cadre mais cadre boobu bu dee si wàllu napp gi licence de pêche yi mu jël jox ko ay chinois jox ko ay russe yooyu tamit nañ nangu ne bokk na si les accentuer immigration eh, immigration clandestine. Euh, euh, euh, surtout nappkat yi amatul. mu bu ñu demee géej bu ñëwee duñ indi dara si jën. c'est compréhensible lu ma xamul lu ma ci wax kooku xamul nu mu demee les de pêche maa xaw ma exactement xaw ma nu mu demee donc franchement je ne en parler. parce que xaw ma ko. d'accord alors pour terminer. situation actuelle au niveau de la diaspora tey ban taxawaay ngeen jàpp na war ngeen ko am par rapport ak xëy na élection locale yi di ñëw ak élection législative yi di ñëw Euh, euh, situation APR diaspora moi je dis que c'est comme la situation APR nationale ah amuñu benn problème amuñu c'est normal il y a des hauts et des bas euh, là actuellement xam nga c'est aussi da ngeen di fàtte que euh, diaspora ils sont impliqués uniquement que lors des ak la ak la présidentielle donc day am temps boo xam ne bi vraiment du ñu am ay activités ah du ñu am ay donc ça mu niroog du ñu am problème fekk non c'est que temps bi dafa gudd ba nga xam ne bon de temps en temps local yi à la limite ni ñu ciy bokkee mooy xanaa bon euh, ku nekk dans ton terroir dafa joxe par exemple des consignes wala des conseils man de xuma bon gis naa xuma su nekkee maire ce serait bien pour nous donc voté leen à la limite y a que ça qu'on peut faire quoi. na diaspora après fini tout est ok amul benn problème daal. malgré non non non j'ai pas j'ai pas dit ça. j'ai pas dit ça j'ai pas dit capable des problèmes dama ne comme fii mais fii comme au Sénégal les mêmes problèmes sont nous sommes un parti qui grandit nous sommes un parti qui gère le pouvoir donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des problèmes mais pour autant wóor na yàlla pour autant nous restons majoritaire dans toute la diaspora un exemple tey même su fekkee ne a des problèmes APR donc moo moo yore quarante cinq DSE yoo xam ne quarante cinq pays bureau boo xam ne APR moo fa nekk teg fa bureau avec ses responsables politiques ñun rek ñoo ko am laajal parti yi ci des 45 pays laa wax ne fépp foo xam ne bi tey les pays où les Sénégalais sont les plus nombreux am nañ fi une ñun donc ñoo ko am bon c'est tout à fait normal nag que mu am ay rëq-rëq ay kii ak yooyu. ce sont des ambitions mais sinon on est majoritaire ah. cette organisation wala majorité boobu ngay wax c'est pour accompagner le président en wala pour après au-delà de 2024. Euh, bonne question. Mais yéen man ce que je ne comprends avant de dire trois pourquoi on parle pas un deux. on la deux, la, deux, non on est à deuxième et dernier mandat on est à deuxième ah. et dernier mandat loolu la wax. mais non le président waxoon. non le président wax yéen a yéen a ko wax man man je me base sur la constitution lu constitution bi wax moom la le, la Constitution, je reviens encore la dessus tout ce que la Constitution dit, je suis d'accord. Et, mon texte, nous sommes en 2020. Vous parlez de 2024. Yallah Ham 2024. Est-ce que je serai là Est-ce que tu seras là Est-ce que qui sera là On peut faire des hypothèses, on peut. Mandé, Yakantouma Gabrouma. ma je préfère parler du, premier mandat que de penser déjà au troisième. mais jàppoo na président am na sañ-sañu def troisième mandat. non man je ne parle pas mandat man je parle du premier mandat loolu la wax. d' accord ñu bala nga tàggoo ak yi. merci di leen nuyu di leen sant ngeen baal ma aussi ah, ci wax bi euh, xëy na mënoon nañoo gën a waxtaan mais temps bi c' xam naa ne amu leen temps encore mais je vous franchement euh, de me permettre de permis au moins may ma occasion boo xam ne bi am na loo xam ne war na ko yegale euh, di leen sant di leen gërëm encore te vraiment di leen encouragé. merci jërëjëf euh, sant nañ la ñun tamit wax dëgg yàlla gërëm la bu baax euh, wax dëgg yàlla di si jaare aussi di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi ñëpp di seetaan Leral TV di ko sa di di ko di ko safoo saa ne loolu moo nekkoon seen euh, émission jokko ñu doon dalal tey l' ambassadeur itinérant monsieur Alioune Ndao Fall nekk secrétaire nekk bokk si secrétariat exécutif national bu APR incha allah rabi ñu leen di jox dig daje ba alxamis prochain incha allah jërë ngeen jëf. tamit di bokk si loo xam ne jaaduwul c'est illégal. je m'engage à n'exercer qu'un mandat de cinq ans. de Senghor à Abdou Diouf Abdoulaye en passant à Macky tous les leaders ont fait du wax wax.